rek mu rey ko daa dem ci beneen ustaas ne man de ustaas damaa gënt lekk pataas <laughs> mu ree hmm. ne sa mbokk yëpp da leen sool door a dee mu rey ko ñëw ci beneen ustaas bu am pédagogie te mën a waaraate ne ko man de damaa gënt lekk pataas hmm. mu jox ko loxo ne ko santal yàlla <laughs> sa mbokk yëpp yëpp gën a gudd fan mu may ko 3 millions waaw Pape Alé ñetti mes ñetti ñetti firi yu benn la très bien yëpp benn la mais nag pourquoi naan kii naan ko sa mbokk yëpp yaa ciy mujj a lu lu négatif loolu noo koy waxee kilifa kii ne ko sa mbokk yëpp danga leen suul bañ jeex door a dee kii ne ko sa mbokk yëpp yaa ciy gën a gudd fan. waaw booboo gën a neex a dégg gën a neex a dégg. fan ci déggin sax. dafa am ci waaraate loolu dafa am ci waaraate moo yoo xam ne dafay blessé. te blessé nit ki bëgg koo jàngal du dugg euh, bu tëdd jotee xale yi bëgg tëri mhm. bëgg nelaw nga fekk xale bi tëdd nga ne ko ab karawaas faaj ne ko ko faaj ne ko reexal ree ya muy ree du ñor de xanaa daa bañ nga dóoraat ko dong waaw am déet mhm. boo ci tegee ne ko nelawal nag kañ leen nelaw <laughs> donc mooyu négatif yooyu mhm. kii waaraate moo ko war a segg te ko fële ne ci yu positif yi ba liggéey ci penc mi penc mi jag. léeg léeg nga dégg ko ne jigéen ñi dañoo sàggan. Mm. am na ñoo blessé ñu bari. Mm-hmm. jigéen ñi jànguñu am na ñoo blessé ñu bari. Mm-hmm. coono jigéen ñi baaxut am na ñu blessé ñu bari. man pour bañ loolu dal ma moo tax ma am nogay. waaw nogay am nga sa nogay <laughs> de ah, eh, oustaz nogay moom de man xam naa ne lu existe la. très bien lu existe la su ma ñëwee ci nogay ne colug nogay baaxut. Mhm. ki sa col baaxut yaay natt ba xam yow nogay nga wala doon nogay ko defee duma la blessé. pédagogie la. loo am solo la. donc rawatina bu ñuy jàngalee diine. rawatina bu ñuy jàngalee diine ndax ñit ki am na noo koy def noo xam ni moom day def ni ko li ko dal diine ko ko teg. Mhm. mu ne man dootuma baax comme li kii wax nii lépp maa ngi ci. kon kay. c'est fini c'est fini mën naa xaar xam naa fan laay féete bu yàlla. yàlla def ne bu leen naagu mukk cër mën de yàlla ndax man ko baax la lépp lay jéggale góorgóorlu leen te ñëw. <laughs> faale loolu kay neex na lool. neex na lool. may fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ne tey sama gan euh, oustaz Alioune Sall la ci biir samedi ba oustaz li gën a jaaxal seen euh, actualité bi ah. Mhm. bokk na ci suñu gisee. tamit euh, am na ay mouvement islamiste maa ngi ko doon waxtaanee ba la si ci mhm. ak ay nit. Mhm. yu songu euh, euh, ba Mali. Mhm. songu nañ ba Mali ñii ngi tiit ci Sénégal. yow loolu est-ce que foogoone war nañ ci waxtaan parce que nag foog naa ne diine gi ñuy pratique fii. Sénégal. war nañ cee waxtaan waxtaan yu xóot xóot. waxtaan yu yaatu. te koor gi koor gi dina doon yoon bu baax. waaw ba nit ñi xam bu baax a baax. lan mooy lislaam ak fi mu nekk nii lum soxla. Mhm. lislaam actuellement soxlawul yenn yi lim soxla fi ne jullit yi xiif nu ñuy def ba lekk yi mar nu ñuy def bañ naan. Mhm. yi bëgg a xam nu ñuy def bañ xam. Hmm? Mhm. yi bëgg a faju nu ñuy def bañ faju yi amul liggéey nu ñu def bañ am liggéey. faqir yeeg miskin nu ñuy def ba mu jóg fi. yooyu lay gën a soxla ci yoo xam ne da ngay ñëw song ko yooyu song la uh-huh. dafa yoo xam ne boo ko songee dalay song par la force voilà buddalu wala. tey soo fekkoon ñu denc nit ci fiñ ko denc nga ne lu tax ñu koy denc ci xabru bii te nit ñi di ko wër kon naa ko toj boo ko tojee buñ ko tabaxaatee mooy dàq bi fi nekkoon. Uh-huh. te tabax gën koy tabaxaan mënoon na jariñ leneen. te très bien. tabax gi ñu koy tabaxaat mooy dàq bi fi nekkoon. donc yooyu ci ci lislaam du doxale noonu du ñëw rek al sunu borom daax ne suuf sii day maa ko moom ñi baax laa koy jox. luy ñi baax laa koy jox mooy salaax ya goo xam ne yow boo ko yoree ñëppay am jàmm. boo ko yoree fitna du am. boo ko yoree jaaxle du am. xiif du am. nga am sa projet de société boo xam ne. foo ko teg ñu ne lii mooy lislaam waaye du am boo xam ne boo ko tegee dañ day tax ñu gàkkal lislaam maa ñu koy song maa ñu koy dóor projet boobu boo ko yoree li fekk yaa ngi ko yor suñu borom teg sa loxo dara donc hmm. waxtaan war a xóot la war a dugg ci biir la loolu mooy lan ak ki tëdd fii lu mu def ak tamit lu tax ñoom ñu war a am gis-gis boobu rek ne booboo baax boobooy lislaam bu baax bi voilà mais na mag ñi fi nekkoon ak yéen nii ak ñin ñii lu ñuy def nii ci lislaam du bokkul ci lislaam très bien donc loolu lu am am solo la ci wàllu gisuñu lislaam ci penc mi ak ni muy doxee fi mu nekkoon démb fi mu nekk tey ak fi mu jëm suba lu jar a bàyyi xel la nit ki daal boo ñëwee fekk ko muy ab julit wala du ab julit moom mu jàpp ne war ngaa nekk kilifaam war nga ko indil procédure procès de société bu leer naññ boo xam ne bii lii bu ci dundee. lu ne lii moo dàq lam nekkoon wala lii moo gën lam nekkoon. Mhm. te ñoom dañuy boddi tarixa yi. waaw ah, ba tey. parce que yoonu yoonu lislaam waaw mën nañ ci jaar ba yegg ci. Euh, Pabale. Hmm. bu tariix amutoon Sénégal jamono ñi ko mag ñi def te fekkoon fi colonialiste yi wala fekk leen fi. Hmm. bu fi amutoon lu Sénégal di doon. Hmm, waaw c'est la question. jar jar naa laaj. kere bi colonialiste yi ñëwee ne damay aaye ku jàngale alxuraan damay aaye dajale mbooloo. damay aaye nangam damay aaye nangam bu fi mag ñi toon ba def lii ñu def te so te te tarixa association la. Uh-huh. boo xam ne bi day yar di defar ay nit. Uh-huh. tey ñooñu fi defar liñ fi defar buñ ko fi jëlee woon lu fi des. sunu mag ñooñu fi defar ñooñu fi defar. Uh-huh. buñ leen fi jëlee woon ñu ñëpp ñu toog fële léegi calculer le paale lu fi des. ñu dindi seen jàkk yi ñu fi def. dindi jumaa yi ñu fi def jël ñiñ fi yar. Mhm. jël dëkk yi ñu fi ta yi ñu fi sos jël lépp léegi nga xool nag Sénégal pabale imagine lan moo fi des loolu fiy def des lu muy def donc ñoom am ñu mérite am nañ liggéey bu rëy. Mhm. te fi ñu jaar foofu la. foog nga ne mouvement yooyu dinañ am chance Sénégal. Euh, buñ ko dee amit lu yéex yéex lay doon te sore loolu dox bi. fii ku fi bëgg a dox dafa am lu fi dox ba pare fi nekk wax naa la ñii buñ jëloon li ñu fi amoon lu fi des dara wala lu néew fii des dox bi ñu doon dox ñoom dañoo ñëwoon fekk ñu nekk ay africain nekk ay noir nekk ay sénégalais ñu ne ci suñ biir bëgguñoo yóbbu kër yonent bi ñu fexe bañ bëgg ko. ñu bëgg yonent bi. nu jàngal nu yar nu nenu nag bëggunu sax ngeen niru nu dañoo bëgg ngeen niru yonent bi léegi nag di def ay ndaje di ci jàllale message yooyu di def ay daara di ci yar nit ñooñu ñu xëy ñun ñëpp tege ci yoon woowu di nongo nongi dem <laughs> boobu moo gaaw mag ñi am ku fi amul ku fi am téeméeri at ñi juróom-ñaar fukk ñi juróom-ñetti fukk ña ca mag ña gën a gudd fan peut-être juróom-ñetti fukk ak nangam def yu yi ñu fi def yoon woowu ñu jaar wenn yoon ngunu ko gaaw. te nit ñi sax ci ba tey parce que l'islam du jàll ci gàddu jaas yi Pape Aliou tel dugal ci biir déedéet laa ikra fi diini nit ki dañ koy convaincre waaye di su ko gàddu gàllu jaas yi. ki dañ koy convaincre. xatte bayn rus dinal xay yi waaye kenn du gàddu jaas yi gàll gàll ko kaay dugg. mukk mag ñi nag loolu la ñu xamoon nu nu jàngal nit ñi yar leen am na ñoo xam ne fi ne ñoom fekki wuñu leen woon ñoom ñoo fekk si mag ñi pour dugg ci li ñu nekk waaw waaye xëy gàddu si dem ca ñoom ñaata nga ko fi nga ko fi dégg bariwut mm-hmm. ndegam am na ku ci nekk da ngay wax nii nii lay defaree nit ñi ba xëy defar leen mm-hmm. ci ci loolu àndandoo doon tamit euh, benn dànk ci diine ji est-ce que dina yomb lu koy firndeel moo di xam nga am na ñu wóor démb am na ñu tàmbali tey. ak a war a yomb.